ñu ngi féliciter au passage suñu camarade euh, Moussa Sow nga xam ne reconnaître nañ ne moom mooy coordinateur de la jeunesse républicaine muy COJER donc jafe-jafe yi nga xamante ne peut-être jàpp nañ ne am nañ am na ko mooy xëy appui ou bien dembel bo xam japp nañ ne tay ci président de la république la waroon jóge ndax gis nañ semaine bi passée euh, ñuy wax ben difficulté bu am ci diggante la cogère

te xeyna na COJER amagul lool kon maa ngi interpellé le président de la république ne ko COJER COJER la tey moom moo xool ba mu neex mu jël Moussa Sow teg ko ci kanamu ndaw ñi te nit boo ko jiitalee da ngay da nga fay mettre ay moyens moyens rek du ay moyens xaalis mais aussi accompagnement bi dañ ko soxla ci côté jeunesse bi ndax tey Moussa Sow xam ne mooy coordinateur COJER tey am na activité yu bëri yoo xam ne war na ko te yooyu tey bu amul accompagnement bu amul accompagnement wu président de la république jiite ko ak ñi nga xamante ne ñooy membre gouvernement bi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci structure parti bi loolu day nekk loo xam ne day day day day pour ñu mën koo pour ñu mën koo réaliser. mën nañu wax ne ay cogère authentique la ndax ñooñu ñëpp kenn mënu leen génn ci parti bi ndax muy euh, GIR muy CRIC muy entité yu bu mënta nekk ñi ci nekk ñoom ñëpp ci membre parti bi la mais aussi parti dafa am nu muy nu muy nu muy nu parti dafa am ay instances yo xamné dañ ko reconnaître yu mel ay cogère lu su mouvement national des femmes lu mel la CCR yo c'est des instances yo xamné dañ ko dañ ko reconnaître mais buñu démé ba nga xamante ne tey structures yooyu ma expliquer né c'est des structures yo xamante ne xëy parti bi du mën reconnaître ko ndax amna lo xamné ñu ngi koy jariñ ci parti bi buñu démé ba tay structure yooyu mën def ay anticipation wala di disposer ay moyens yo xamante structure régalienne parti bi amuñu ko je pense que loolu ça pose problème. ñun déglu nañ bu baax euh, ki nga xamantene moy mooy coordonné muy Moussa Sow mom il appelle à l'apaisement. ndax euh, temps yi ciow li bari na mais aussi japp naa comme ni ma la ko expliqué que ne cogère mom mo fi nek mom lañu reconnaître yeneen structure yi ne kenn daaxu mais ñom war nañ mën def mais japp naa tay tey. képp koo xam ne da nga nekk ci parti bi mën a jàppale JIR wala wala nga mën a jàppale beneen structure mën ci def sa moyen lépp loo leen jappalé ben war nga mëna jappalé fuk fukk COJER ndax bu muy metti COJER mo fi nekkoon COJER moy structure bo xamné depuis parti bi existé ñom ñoo fi nekkoon. COJER jaar na ci loxo Abdou mbaw jaar na ci loxo Thérèse Faye Diouf ba ci Moussa Sow té dañu gissone structure yooyu ñu fi nekkee chaque fin du mois ou bien chaque événement président amna ay subventions yo xamné don nak yëkëti diko jappalé structure yoy mais dem nañ ba à moment donné ñu dégg né tay subvention yi non amatul et je pense que nit ki bu nekkee ne da ko jël dénk ko sa ay ndaw parti ba paré subvention yi retard wala ñewul je pense que lolu ça pose problème ndax di nga am problème de coordination nit ñi fi ñu dëkk dafa sori ndax tay mëno tay suñu siège parti mi ngi nekk ba mermouz, nit ñi jeunes yi di juggé fu nekk di ñew di ñew di nga len di wo ay rencontre ñu ñew bu nekkee ne ñom dañuy def seen déplacement yoy té bu ñu ñëwé té amana sax bu ñu ñibi dañu am ay problème pass wala dañu am problème bo xam da leen di yobbu je pense que pour nga am une capacité de mobilisation ça pose problème donc ma ngi interpeller autorité di interpellé président de la république né ko subvention yi nga xam doon nako jox euh, ndaw parti bi doon ko jox structure parti bi nako nako na waxuma mu bayiko mais daf ko wara yok ndax loolu doona dimbalé bu baax jeunesse bi wa jeunes yi mom ñi ngi xeyna ñun ñu ngi si parti bi mais xëy na suñu ay responsabilité bëri gu fi am na événement nag yoo xam ne xew na fi ñu ngi koy gis yoo xam ne am na yoo xam ne dañ koy encouragé am na yoo xam ne tamit neexuñu ndax tey gis nañ ne tey période bi ñu nekk rek ñu ngi si lu ñuy wax marathon budgétaire mais des fois ñu gis ay comportement yoo xamante ne ay ay député yoo xam ne dañu bokk ak ñun parti nekk ci mouvance bi ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy am te comportement yooyu nekk loo xam ne ñun dañ koy rafetlu ndax gis nañu ay saaga ay xulu ak ay xeex yoo xam ne day am si biir assemblée te je pense que loolu nekk loo xamante ne image bu rafet la loolu ñun dañ koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem. ñun instant bi je pense que mënuguñu porter dara parce que comme ni ma la ko expliqué ñooñu ay mag lañ ñun en tant que jeune ñun leen rek lañ moo ñu war mooy xëy na alerter wax yëkkati suñu kàddu wax. ba ñom ñi nga xam te ne ñoo wara jël décision yi ñu def ko parce que bon boy xol assemblée jeune yi amuñu fa ben représentativité yi donc motax tax ñun amuñu fa accès donc ñun luñu ñu mën rek moy wax waslu àq ñaax leen xam leen ne ah yéen kat dañ leen yóbbu si pencu ndaw réew ma te nit ñi kat ñu ngi leen di seetaan kon foofu bu ngeen demee foofu am na yenn comportement yoo xam ne je pense que rafetul pour que ñu ñaañ ay représentant du mun ay député di ko am donc loolu ñun dañ koy ñaawlu ba fu ñaaw lu yam te bu am si diggante la COJER ak yeneen structure yoo xam ne du duñu ay structure yoo xam ne reconnaître nañ leen si parti bi lu ci mel ne GIR lu ci mel na CRIC mu nekk ay ay ay ay ay entité yoo xam ne

teg ko ci kanamu ndaw ñi te nit boo ko jiitalee da ngay danga nga fay mettre ay moyens moyens rek du ay moyens xaalis mais aussi accompagnement bi dañ ko soxla ci côté jeunesse bi ndax tey Moussa Sow xam ne mooy coordinateur COJER te am na activité yu bëri yoo xam ne war na ko dérouler te yooyu tey bu amul accompagnement bu amul accompagnement wu président de la république jiite ko ak ñi nga xamante ne ñooy membre gouvernement bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci structure parti bi loolu day nekk loo xam ne day day day day jafe pour ñu mën koo pour ñu mën koo réaliser.